Sénégal moom bo fa de dof gu dañ lay ràngati doomu jàmbur ji nga xam faire dafa am feebaru xel Wirul. bibis mi wérut boo taxaw di wax da nga ki waro rawati nak mu taxaw ne ana mu pourquoi ngeen sétane ñu jël sen dom ji diko afficher te Wirul, nit ku dof la non mais amna lo dafa ñaaw jël dof ko ci devant public di ko defloo ay vidéo di ko woyloo ay woyu dof di ko dugal pour ñëpp di ko reetaan lii dafa ñaaw dafa ñaaw maa ngi koy ñaawlu trop bibis li muy def xamu ci dara li muy def moom xamu ci dara yónnee nañ ma ay vidéo yu bari man analyser ko xool ko mais dama am ci moom yërmande ay mbokkam la ñu gaaw jug ci moom yóbbu ko Refeneuli mbaaw wala ñu yóbbu ko hôpital Fann foofu la ñuy faj dof yi bibis mi wérul de nee na star la waykat la ndeysaan parce que barito boo yorul da ngay yaru barito bu Sidi Diop yoroo saram ndeyam Sidi Diop yorul saram ndeyam boo leen yorulee da ngeen war a yaru gis nga Wally Seck ku ko laal ma toj sa cootu ndey loolu moom aw ma ci négocier waaw waaw aw ma ci benn négocier xam naa ni danga may suivre sama waay nga waaye Wally sekk boo ko bàyyiwul ci jàmm damay toj sa cootu ndey yaag Sidi Diop ay doome doomeraam ngeen mënu leen fee nekk di saga wali di saga papam ba yayam gañu di mama jaga, yow ya saga mama jaga, suma la gisee nga def vidéo di gërëm mama jaga, di ko waxal lu baax dama nan lan yow kan nga li ngay wax gëmo ci dara loolu jarul nga may saga, man ay saaga defuma dara didit ay saga dama koy def kafeeg meew di ko nan comme ni xola di nga yéex ñew Europe de bëgg ñew Europe mo la jaral ngay saga nit ñi nday ndax Sidi Diop indi la yow de doo ñëw doomu cottu ndeyam bi. kaay kaa bii nag kaawu rendi la ndax waa ji dafa jël doom ji duggal ko ci biir néegam fas yéene ko rendi waa dëkk bi yëpp dajaloo woo polis woo chef de woo ñëpp ñëpp ñëw taxaw ci buntu bi moom mu menacé ne ku dajji buntu bi dugg ci biir dina jëflante ak yow ñëpp taxaw ci biti nag di ko ñaan njekk waaye bi ñu toogee ba mu def diir ci la gars yi dajji buntu bi ñëw fekk waa ji tëral doomam rendi ko. allahu akbar ay waay senegal gi ban senegal la jamono yële passé am na ñu fi rendi woon Touba Sénégal daal léegi rendi rek rendi rek yéen ñi nekk Europe boye boo ngeen gën a toogaat ci réew mi fii mooy réewu jàmm fii kenn du fi rey nit kenn du fi rendi nit allahu akbar tiit allahu akbar noo mën a jure sa doom noo mën a juree sa doom tiim ko di ko rey di ko rendi ak paaka rendi ci baat subhanallah yal na ko yàlla yërëm te xaare xaare ko ajana doy na waar metti na ndeysaan ndeysaan gars yéen a ngi fàttaliku Papa Thione moo fi woyoon ndey daal ndeyu kenn la baay baayu ñëpp la du ma ni maa fi gën yaay waaye mindeef gënumaa yaay <laughs> mindeef gënumaa yaay yow mi gën ci man yow mi gaaw ci man yaay booy ndeysaan fonk leen seen yaay yi waay fonk leen way jur yi waay waaw fonk leen way jur yi muy yaay muy baay waaye yaay yaay yaay ba muy ñetti yoon loolu xadis la waaw waaw baay baayu ñëpp la waaye ndey ndeyu kenn la kon nag man amul dul sama yaay yal na yàlla guddal fanam wéral ay cërëm teraanga gi ma am ci moom yëpp yéen a ko defal yàlla na ko yàlla moo tali ndeyi daal ndeyu kenn la ndeysaan